gars yi salaamaaleykum ah. foofu laa koy arrêté fi may tàmbalee mooy waali dafa ne laay lay le laa woo yow yaay sama doomi yaay laay lay le laa woo dégg fi mu waxee ah way ak fonk waajur ah way ak moom fonk gi mu fonk waajuram bis bi muy woy lii ah, ca suba ga la waajuram génn àdduna muy woo beneen sénégalais beneen sénégalais man woy bi dafa mel ne man la koy woy dafay mel ne war la koy woy parce que xam lu rafet rek a rafet ah xoolal ak kum ko mënti woy ci Sénégal dafa mel ne man la ko woy parce que li waali doon woy la di wut di xëcc di jafandu laay lay le laa woo yow yaay sama doom yaay kooku papam li mu def fii ci way ci senegaal kenn defu ko fi barke Mohammed du kenn parce que dem leen ngeen jël xoolal li coon defar yépp li du bu ngeen bu leen jël way yi kese mais da ngeen koy jël ak njabootam njabootam njabootu papa coon ngeen jël leen ah. après ngeen tànn ci biir ku ci nekk rek ki la neex loolu la ñu papa Thione defal man sama grand la Thione Seck sama grand la Thione Seck sëñ moor Ndiaye mbay si njaay xam nga kóllëre ak Assane Diouf avant may xam sax kan mooy Waly avant may xam kan mooy Waly Thione Seck man Amérique la ma fekk ma yëngu ci artiste bu ñëw ma ñëw taxaw grand Abdou Diaw ma lay comptable mën na ko seede ñun ñoo ko taxawu añandoog moom mook ajaa jaaga bii musuma toog sax di wax ci yooyu yàlla na leen yàlla yërëm meen yàlla leen yàlla yërëm dugg leen ci njabootu Papa lépp nag xolal commencé leen ci ñi mu bokkal ay rakkam ay doomu baayam ngeen xam lan lañu Papa bàyyeel ba pare léegi nag waxuma laa doomam yéen ñuy wax sax di yenn saa ngeen génn yàq deram walla ngeen wax wax bu ñaaw wala dara xolal dafa am lu ñu yaayam defal lu mu bon bon jaaga jaaga li may wax nii nag actualité rek moo tax ma dugg ci ah actualité kese moo tax ma dugg ci waaye sama rakk la njabootam samay xarit lañ sañ moor Mbay si Fallou xam nga Benjamin gars yëpp samay ñëpp ñëpp ñëpp samay xarit lañ ñëpp tout le monde tout le monde ñaar ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp vraiment rek xam nga <laughs> am na lu fi amoon man maa génn ne ko xolal man maa njëkk a génn ne ko jàppal ci say nit parce que ñooy sa baay parce que am na ku fi génnoon wax ne moom xam nga dina ko taxawu ci bépp taxawaayu baay ma génn <laughs> ne na <laughs> ko boo boo nga jàpp ci ay ñoom yuusu jang ak ñoom xam nga gars yi faramaareen ñi nga nekkal mais feneen ku la wax ne dina la defal lii kooku xolal après da lay tardeel waali bugguma sori parce que bu ma soree dafay mel ne dama lay tagg walla dara waali ñun dañu fekke démb ay bu leen ma fiiree yaay fekke lépp 1971 man xalaatal waali yow yow yaay kenn ci Sénégal koo xamante nii billaahi wallaahi wa taalaahi boo bàyyee woy fecci kóllëre Wally Seck Wally boo bàyyee woy ah fecci kóllëre parce que xolal sa waajur la du ci yow de yow yow la par force da ngay woy par force la mu neex la mu naqari la mu neex la mu naqari la dangay ngay woy xam nga lu tax fi affaire yi jaar la waali fi affaire yi jaar la Papa Thione Mapenda Seck Assane Ndiaye Kéba Ousmane ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba ci grand grand suma grand frère nga xam ne maa moom Serigne Touba moo ñu gën a boole moor Dior Seck Mor Dior Seck waali moomuloo sa bopp par force yow da ngay woy te billaahi wallaahi wa taalaahi su ma nee la par force da ngay woy yow par force da ngay woy parce que leneen loo defati leneen loo def fecc kóllëre sa papa ngay représenté ma ñun dañ lay déglu dañ lay déglu te par force dañ lay déglu kenn mënu ci dara te par force li nga bëgg ci musique di nga ko am man maa la ko wax su ma la ko waxee rek gëm ko wala ni nga ko jàppoo nii guddi yu mujj yi ah barki sëñ Bamba boo ko jàppoo foofu nekk nga bàyyi musique gu senegal ba pare parce que ñu fi nekk ay junni at yoo xam téeméeri at xoolal def nga ci musique gu senegal loo xamante ni yóbbu nga ko xoolal affaire yi du du ay titre de ñun xam nañ titre yi fu mu jógee waali ñun xam nañ disque door yi niñ ko fi yooyu yëpp ñun xam nañ lu mu demee ba pare xam nañ ñi am vrai disque door tamit yow senegal mooy sa disque door wayal sénégalais yi mooy sa disque door fàttalikul bëccëg bi sa papa njëkkee taxaw nangu micro ne la maay booy dama nga jàngiwaat nga dem jàngi ba mokkal prouvé moo tax bu demee wane ginnaaw danga fi war a toog prouver loolu mënoo ci dara loolu actualité la rek sumbulu sumbulu toogoon na fi sumbulu bàcci li toogoon na fi wax fi partager leen partager leen rek ñu waxtaan Soumboulou Bathily toogoon na fi wax ci xam nga lu jëm ci civilisation Soumboulou ah ñu dal ci kawam Soumboulou Bathily ñu dal ci kawam biñ dalee ci kawam man mi bokkoon naa ci ñi génn defendre ko ne leen sama waajur sax man day def li mu li Soumboulou wax noonu man mii sax daf may dal parce que xam nga ignorance fii la ma affaire yi sumbulu bàcci li ay théâtre ay théâtre léegi ñun Sénégal dañu war a jël maanaam li am importance muy xeex bi ñu nekk nii yee di ko xam nga di ko jëndee ay wax yoo xamante ni wóor nañu ne wóor nañu ne wóor na wóor yàlla ne guddeeg bëccëg ñu ngi koy waxtaane seen biir néeg yi mais dafa génn rek ci mbedd mi ba pare ci théâtre ndeysaan théâtre théâtre gars yi nañ jéem a changer suñu senegal men nañu jéem a def lépp rek pour changer suñu Sénégal te niñ koy changer mooy xolal ku nekk rek nangul sa moroom ci benn affaire ku nekk nangul sa moroom ci benn affaire di wax di wax dëgg ci moom di jëf dëgg ci moom ba pare di dox léppi dëgg bu ko ku nekk nangu lee sa morom après ñun du ñu am benn problème maanaam hypocrisie nañ ko génne suñu biir li ñuy waxtaanee. sama mbokk ñeeño yi yéen seen bopp xoolal xam ngeen ne sumbulu théâtre la doon joué mais dañoo toll ci jamonoy manipulation ak jamonoy defoon na fi lii waxoon na fi lii kon nangam ak nangam maanaam taqal nit ci jamono boobu. jamonoy taqal nit ñeeñooñ yéen la ndongoloo wayoon ñeeñoo bala mañ sa ñeeñoo bala mañ sa ñeeñoo bala mañ jaaraama loolu rek war na leen a doy ndongoloo ki dàqa way ci istuwaaru u Sénégal <laughs> loolu rek war na leen a doy ñeeñoo bala mañ sa ñeeñoo bala mañ sa ñeeñoo bala mañ jaaraama après ñu ñëw di ñu séparer continuer continuer aussi ah di ñu séparer benn par benn ñuy toog di ko débat ci jamono bi nga xamante ni hey amuñu dara lu ñu war a def dara nag lu ñu war a def ah lu dul jàkkaarloog li ñu waroon tey li ñu waroon tey mooy élection bisu tey bi dafa waroon fekk ñëpp. fépp ci Sénégal ñëpp ñëpp nag laa wax nekk ci mbedd mi parce que xama lu ko waral waat bu nekk waat bu nekk waat bu nekk waat nañ ko fi